spécial pack ramadan bu ren herbe épice version 2023 nga am 5 variétés épices ci biir à 6500 francs <laughs> oh, sama gars yi lii koor gi rek a ko mën dee ay coñ jaal ci recette du jour bi asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuy naa leen sama gars yi ziyaarati naa leen di leen ndokkeel ci weeru koor bu sell bi ñu nekk ren herbe épice mi ngi leen di jaajëfal di leen ndokkeel waaw gis na ni ngeen di xëccoowee pack spécial ramadan bi waaw kay yéen daal continuer leen ko noonu rek fi ngeen ko jàpp moom bu leen ko bàyyi waaw ndax euh, tul kenn sama gaay yi kenn naxatul kenn ay épices cent pour cent naturel prix bu abordable cinq variété épices yoo xamante ne euh, weeru koor bee tax ren herbe épice wàññi njëg bi def ko six mille cinq cent nga am épice su euh, légume épice su lakk ginaar épice su viande poisson ba de xaaral ma jël ko cinq variétés épices yoo xamante ne épice su poisson épice su légume épice su lakk ginaar épice su ak épice su sauce waaw ñu wàññi njëg bi weeru koor bi nag tax Euh, ren RBPC def ko cinq 6500 pour yombalal leen liggéey bi xam nge ni kenn lekkatul ay bouillon industriel ay épices 100% naturel nekk fi di ñu faciliter suñu digestion ba noppi euh, pack bi nga xamante ne gis nga moom rafetaayam nee naa la c'est une composition de mélange d'épices naturel pour une cuisine saine et savoureuse voilà loolu la ren RB ren RBPC wax osez le bon goût du naturel sama gars yi ak ren RBPC yow jëlal sa pack jënal ñetti pack jox ko sa goro waaw jëndal ñetti pack def ko sa euh, pañe ndogu boo amee pañe ndogu jëndal ci pack euh, spécial ren herbipis bi boole ko ci sa pack spécial ndogu waaw koy jox ko say am di jàmm tey dañuy dem ci supp ndax waxoon naa leen ca njëlbeen euh, supp yi moom dana tarkal ci Alphie waaw parce que supp yi dafa am importance dafa am solo ci sunu alimentation supp yi dafay andi lu neex supp non seulement neexaayam mais dafay andi apport boo xamante ni dañ koy soxla ci weeru koor bi waaw parce que dafa nekk ay bienfait yoo xamante ni Euh, maanaam fi mu nekk nii euh, togg bi dafay sell parce que dañuy ñuluk voilà matière grasse bi du bëri ndax poulet la ñuy utiliser waaw kañ blanc de poulet bii nga xamante ne tey moom laay def dina am pois chiche dinaa ci def légume carotte ak euh, pomme de terre doomu jinjeer bi nag gingembre su may faral di def soupe de poulet man dama ciy bëgg def dama ciy bëgg sentir gingembre tomate fraîche bi ak soble bi ak nokkos beeg purée d'ail bi ma am fii ñoom fii laa leen di dugal ci mixeur bi daal di leen di wal voilà su ma ko Euh, day tax sunu supp gën a rafet voilà pour la nettoyer suñu blanc de poulet def ko ay lamel moom ci mujjanteel bi la fay de lay dem léegi fii dama fi am lentille euh, lentille laa njëkk commencé baxal na ñu dëbb nokkos bi damay fejet tomate bi def ko ci mixeur bi grossièrement rek pour dimbali mixeur bi voilà daal di dagg soble bi ak pooro bi moom tamit mu dem mooy faral supp bi ak pombiteer bi ñi am supp bu far léegi nag différence su li ma doon wax léegi supp bi ak xarira mooy supp bi du ma ko liyee du ma ci def farine dama koy bàyyi noonu euh, ni mu ni mu naturel donc euh, naam da ngay gis ingrédients yi nga xamante ne mooy dem ci supp xarira mais ba léegi bokkul ak xarira voilà léegi base bi moom la ñuy mixé dina dina tax suñu supp far le temps que lanti bi première ndox bi doon baxal lanti bi dama ko dama ko tuur defaat ndox bu bees nga xam ne dañuy am bouillon supp bu clair voilà léegi nag euh, xam ngeen ni vingt variété épices yi ma leen présenté épice su euh, supp bi ci la ci la bokk épice su légume bi mën na dem ci supp bi parce que euh, dañuy def ay légumes waaw lakk ginaar tamit ndax moom mooy génnee guwu ginaar yi donc ñetti épices yi nga xamante ni dama koy def ci supp bi bu la neexee mën nga def épice piquante mais comme euh, bëgguma supp bi saf kaani donc du def épice piquante parce que épice supp bi rek dafa am goût waaw moom ak voilà nokos bi moom la ñuy def nii nokkos bi moom la ñuy sotti voilà nokkos bi yeleen di daal di def ci biir lanti moom il faut que ñu koy utiliser ak euh, pois chichi ci weeru koor bi parce que bu ñu nee weeru koor rek dangay gis ni euh, dafa nekk moment boo xamante ni suñu yaram dafa am yu bëri yu muy soxla te anémie euh, bokk na ci yoo xamante ni dañ koy seetlu ci weeru koor bi ak li nga xamante ni mooy constipation parce que dañuy déshydraté suñu yaram dafay manqué ndox voilà ta ndox yooyu bokk na ci di lekk supp euh, ak di lekk ci fruits yeeg légumes yu bëri donc pomme de terre bi moom it na ci dem ak carotte bi ma daal di jël doomu jinjeer bi comme dafa am ay ay filament dama koy râper donc su ma nga xam ne pulpe bi kese moom laay am ci biir voilà carotte dollil sey légumes ah, su fekkee da nga am yeneen variété légumes yoo ci bëgg def dolli ko mais comme man dama am ay euh, euh, dama am pois juste am lentille carotte rek laay def ak li nga xamante ni moom mooy euh, pomme de terre waa ma ngay bax de yëf yaa ngay bax de sama gars yi ayca bu leen fàtte seen pack spécial Ramadan Reen Herbes Épices voilà idée de cadeau pour ñeen ñi nga xamante ni da ngeen di joxe ay sukkaru koor jinjeer bi nag moom bu leen ko fàtte moom boo ko ci defee beneen da ngay sentir benn goût bu neex voilà ci supp bi defaguma ba léegi matière grasse voilà épice supp bi nga xamante ni moom supp moo ko yëkkati donc moom tamit bokkul ci pack bi waaye commandé waale ko tamit du ko yàq ana nokos incontournable voilà épice nokkos léegi nag ma yemale gaz bi daal di jël ginaar gi nag fejet ko voilà daal di jël ginaar gi nag ko élément yëpp ñor ma soog ci def ginaar gi pois chiche bi na ci duggaale rek ànd ak ñoom waaw koy nga xam ne moom du wéet moo gën ñu bàyyi ko fële moom kese muy xaar waaw na dugg rek fekk seeg yëpp ñu wàññi nag sunu gaz voilà gis nga euh, lii nii ci kaw yëpp après dafay bu bu au fur à mesure muy ñor mën nañ ko tondi pour am supp bu gën a rafet mais tamit dafay ñoraaleeg moom léegi dañuy dagg suñu herbe aromatique euh, persil ak coriandre terminé ko ak ginaar bi moom moo koy moom moo koy tëj waa Aïcha voilà léegi consistance su supp bi ñu bëggoon gis nga euh, fuur fuur bi nga xamante ne moom la ñu amoon bi ñu jëkkee ñulu léegi yëpp far na voilà lanti bi ñor na pois chiche bi ñor na carotte beeg pombiteer bi ñoom it ñëw nañu fekk si euh, légumes yi mu ñor léegi li ñuy def mooy def ci ginaar bi ndax ginaar blanc de poulet moom wax dëgg yàlla soxlawul euh, muy ñor ça veut dire soxlawul temps bu bari pour mu ñor moo tax ginaar bi lañ ciy mujj def pour nga mën a non seulement sentir ginaar bi waaye tamit euh, mu bañ a yàgg ci li nga xamante ni mooy cuisson bi dañ koy poché voilà moom bi laa doon seet seet voilà et puis su lakk ginaar bi moom it dafay ñëw non seulement def ci couleur waaye tam def ci goût voilà comme ni ma ko waxee woon sànq du ñu lié maanaam du ma def farine nii laa koy nii laa koy bàyyee voilà waaye supp bu neex supp bu neex sax euh, fi mu nekk nii ginaar gi ñor na légumes yi ku ci nekk mi ngi place am herbe aromatique rek moo des voilà bu ko defee ñu bàyyi waat tuuti diw bi tàmb moment bi nag mën nañ def tuuti tuuti huile d'olive waaw mu ànd ci gu def ceeg ci la rek comme aw ma frais bi voilà ma jël coriandre séché bi rek def ko ci voilà léegi nag jël tuuti huile d'olive voilà def ko nii ci kaw mu def ci gu ndax bokk na ci huile yoo xamante ne waaw huile huile bu baax la ñam rectifier assaisonnement bi et puis sunu sunu supp pare voilà comme ni ma ko waxee rek je vous souhaite un très bon ndogu euh, bu leen fàtte profito ci pack spécial ramadan yi pour mën ko offrir ci euh, panier ndogu yi et puis gars yi rek supp bi saf na neex na te comme ni ma ko waxee léegi togg nañ ko te defuñu ci euh, diw bu bëri soupe de poulet bu am lanti am pois chiche waaw ñu sànni ci sunu tuuti légumes sàppale ko ak Reen Herbes Épices tey moom la ñuy ndogo jaajëfal naa leen sama gars yi bu leen fàtte partager vidéo yi like abonné et puis bàyyil ma seen commentaire rek ndax yéen may wéttali ci koor gi commentaire yi yéen may wéttali jaajëfal naa leen sama gaay a dame demain allah mm-hmm.